Bienvenue sur Salam Vision. suñu mbokki internet yi Salam Vision ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen balu ak euh, di tàmbali benn émission na bu ñu war a def ak yéen ñoo ngi leen di bu baax a baax a baax di leen balu ak di leen nuyu bu baax di leen ziara bu baax a baax euh, maa ngi nuyu nag euh, sama mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom laa bàyyi fële ca ca daara ja muy suñu waa grand place bi ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziara di nuyu. sama mag yu baax ñu ñuy wax jaaji Diouf maa ngi ziyaare soxnaam Fatma Samb ak njabootam gépp ñenn ca kër ga maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax di ziyaare sama mag yu baax nag sama xalifa di sama taw baay ma nga fële ca ca France ak njabootam Mamadou Samb ak xaritam bu baax bu ñuy wax Malick Kane maa ngi leen di ziyaare bu baax ak soxnaan su ñuy wax Moundé Wade bu baax a baax ak soxnaam mu am fii ab aawam bi Urey Dieye maa ngi koy ziar bu baax am ndey Fatou seen fa la ci yëmbal ci jàkkay Ndaween maa ngi leen di bu baax a baax a baax. Ah, ñoo ngi tàmbali nag benn émission boo xam ne nii ah, dañ ci bëgg a waxtaane nag ah, lu am njëriñ loo xam ne daañ ko mën a jëriñoo ñun ñëpp muy la xewoon démb ak lii xew tey muy dimbalante dimbalante nag yàlla ñu ko njëkk a sant bu mu bindee suñu maam Aadama ci la ñu sas mu amum njaboot ci la ndimbal tàmbalee loolu nag ci lañ bëgg a waxtaan ak yéen fii tey ah, ma indi woon sama invité fii di Serigne Maxu Mbaye ah, di bëgg géwélu Ngaye Mékhé Pekes ak Sugeer ñu bëgg a waxtaan nag ci émission bu mag bi tey ngir ñu ñëpp ñu jariñoo ko Alaaji Maxu Mbaye asalaamaaleykum. waaw sëñ Cheikh maa ngi maa ngi ziar ñëpp mhm. di nuyu waa Sénégal. di nuyu waa Salam Salam Vision. di nuyu sunu mag yëpp muy Diop am moom lépp yow la. ndax yéen yàqu leen émission bi yàqu leen dara tey jii bu ñu toogee fii à de yow la. a da ngaa da nga maa da da nga maa rakkoo. da nga def ma ni doom jooju. man dama la wax man comme ma papa rek yow laay def bàyyi dinaa def mag dinaa def bàyyi. Hmm. ndax xam naa fi mu yëg ma la neexoon kat émission bi nga woo ñeneen waaye déggoo la da nga suñ ma may. sama émission yow laa bëgg ñu am leen di ko def te dèjà loolu la gërëm ñëpp nag man nag damaa doon jox ñu jot laa mu ma doon jiw maa ngi nuyu waa Ngaye di nuyu waa Ginnaaw Rail di ma jugee di nuyu waa Touba di li ñu def daal yàlla jëm kanam si kàttanu yàlla sa yàlla mën na ko yéen a ko def mm-hmm. jërëjëf incha si jërëjëf ah, jërëjëf alaaj ma ko bay loolu nga wax rafet la mm-hmm. ndax nitu nit ñi ñu ne ah foo toog nit ñi fekk la fa. kër goo mës dëkk rek grand place la. ñëpp dañuy ñëw ci yow. loolu moo tax euh, baax rek moo am solo. Euh, moo tax ma war fii tey. ngir ñu waxtaan ndax euh, képp ku ko dégg di nga xam ne. Mm-hmm. Ah, li ñuy wax loo am njëriñ la. ndax jamono bii ñu nekk nii nit ñi dañoo dem ba xamatuñu fu ñuy taxaw. dañoo bàyyi suñuy aada yëpp bàyyi suñuy cosaan. Mm-hmm. te li ñu suñu mag ñi bàyyi loon mm-hmm. dañ ko dañoo wàcc yoon yi. ndax dimbalante lañu suñu mag yi bàyyee fii suñu bàyyee suñu maam yi loolu lañ xamoon di dimbalante di defante lu baax di waxante lu baax képp ku mag yaay uuf gone ya uuf mag ña uuf ñépp ba kenn ku nekk am sa yëfi bopp loolu nag lañ bàyyi léegi mm-hmm. euh, aw yoon woo xam ne nii mm-hmm. yoon woowu daal gënul ci ñun léegi nag ñu bëgg nit ñi dellu siwaat mm-hmm. euh, ca lañ bàyyi woon démb ñu dellu siwaat ci tey waaw léegi euh, waxtaan wi Franck fi ñu ko bëgg a teg mooy nit ñi dañoo fàtte dimbal mooy lan ndax dimbalante dafa baax yàlla bu la bindee nga nga bokk ci askan mu jox la wërsëg dalaa def dalaa joxe loo ñi néew doole ñi am doole leen di uuf suñu mag ñi mag ñi baax ñu jëkk ña li ñu bëggoon bu ñu sampee kër dañuy woo jarbaat yi ñu ñëw ñu woo néegu ndey woo néegu baay ñi néew doole ñëpp ñu uuf leen ba kenn ku nekk am say fi bopp kër boo ci mas a dem mm-hmm. dana génne fukki kër mm-hmm. loolu loolu la mag ñi bu ko wax mm-hmm. képp ku ci wopp dañ lay taxawu di la dimbali taxawu sa kër taxawu sa njaboot ba nga dellu soit ci sa sago loolu la mag ñi njëkk ña xamoon te jamono bii ñu toll nii nag nit ñi bopp sa bopp la def te yaakaar naa ne loolu amul njëriñ ci kenn ñi am wërsëg daal nañu dimbali ñi amul bu ko defee yàlla mën naa dogal ñëpp am yàlla moom la doxalee àddinaam bi day fekk aw askan mu génnee ca benn waay képp yëkkati alal ju bari teg ci loxoom lim ko sant mooy deel joxe deel joxe la ko sant bu ko joxewul nag mu jox ko ordonnance te ordonnance ba du tàggoo moom mukk laa yomal xeer te loolu baaxul kon nag war nañoo seetaat suñu doxalin seet suñu taxawaay xool fa mag ñu tegoon seen i tànk démb ñu teg ko fa alaaji Maxu Bay waaw monsieur fi nga yem fi nga tàmm fi nga yem fi lay tàmbalee ndimbal moom booy xool Sénégal bëreetul ndax tey jii may nit jël jàngal ko ni nappee mu gën mhm. te tey jii koo dimbali mu ngeen nekk en famille mhm. kooku tey jii bu dee ba am dimbali keneen keneen bu dee ba am dimbali keneen bu ko defee sax yow mi nga xam ne yow yow la yàlla njëkk a meññ ngay dimbalante chaque jour rek surtout day nekk en tête. mais Sénégal ñun yàlla xam nga yow daanaka sa léegi booy xool mu mënatul léegi ku feebar ku dee la ma. dangay feebar nekk hôpital la yàlla xam nga boo dee nit ñi nañu dimbalante dimbalante wàññi dara man gis naa benn muur muur boo xam ne. bi mu nekkee en Europe seen fay dëkk bi nekk ñëpp la yóbbu ñëpp la yóbbu muy jarbaatam di doomam ah di sëtam bàyyiwul kenn tey jii ba mu demee ba nekk mag dañ koo tabaxal kër boobu dañ ñu ko am nga kër bi mais bii yow yaa ko féetewoo moom ko sa lépp la fi fekk lu ko waral dimbali doomu aadama mhm. mhm. mhm. dimbali doomu aadama yi di di xool fi nga xam tey jii ah daanaka sax kenn xeebul dara tey jii boobu la yàlla mayee nga nekk am ay ay doo am nekk ay doomu aadama yow tey yàlla nga nga tane si bu ko bu koy fa jotee génneel sa sa koor jël bu si ne nan ah nga xam sa xar xara ni fekk soo leen seet pomme lépp lépp a ngi. te dèjà la ngay cof ngeen ko la wàññi dara. da la yokk wàññi. Mm-hmm. kon ala alaaji ma xumbay loolu nga wax lu am solo la ndax dimbalante ah man ñi moom lañ dëkkee woon moom lañ doon dundee nit ñi nag ci jamono bi ñu nekk nii mënuñoo faj ku feebar dëgg lañ man dañuy bàyyi ba nga faatu ñu jël alal ju dul jeex ba ko caa def nit ku faatu moom kenn mënu koo teral ajjana doomu akum ñaan lañ ko mën a terale te jamono bi loolu leen nit ñi man ñu ci bari nag te yàlla baaxe leen ñu am wërsëg ah defal ab jàmbur sax moo leen gën a defal seen i bopp dañuy daw seen i bopp dem dëkk fi sori foo xam ne nii mënoo faa dem sax seeti leen wala ñu teg fa gardien boo xam ne nii doo mën a dugg ci biir kër bi te loolu moo xew ci jamono bii ñu nekk nii te loolu man naa ñàkk kenn ku ci nekk war ngaa mën ne dimbali sa morom ci la la wër ci la yàlla wërsëgalee ndax wërsëg wëri sëg la boo faatoo day delluwaat ca ndono ya te loolee nag du la amal benn njariñ li lay amal njariñ mooy li nga def te yàlla tax nit ki looy liggéey sa biir bàmmeel la war a doon waaye sa biiru bopp bii da koy bàyyi yàlla ndax bu dund ba demee lekk ba déwén noonu la yàlla bindi addinaam bi ah bàyyi wàccee mi fi ñu war man da la ma xamoon ca mag ñu njëkk ña dañ daan uuf mm. seen i jarbaat mm. uuf seen i rakk mm. uuf seen i doomi ndey uuf seen doomi bàyyi bokk ak ñoom génn kër dépense ba ñu dépensoo kenn du xam fu muy bàyyi ko jigéen ñi daal ku ci xëy da ngay jël dépense dem duggi ñëw defar li nga war a defar waaye doo xam ku koy joxe ci kër gi te loolu sutura la loolu nag moo bëgg a ci jamono bi ñu toll nii ñi am alal dañu dem tafu ji ca ña am alal bàyyi néew doole yi kon kay bu boobaa bu bu boobaa. ndimbal jeex na. ndax azaka lan moo tax yàlla yàlla wàccee ko. ñaari téeméer yu nekk mun ne la génne ci juróomi dërëm. bëggul nga loolu ci. waaye ñoom ngi koy jox dana leen jëriñ dara. su fekkee ne da ngaa dajale sa asaka. mu nekk ay millions. nga xool ci sa wàllu kër baay ñaari nit. xool ci sa néegum ndey ñaari nit. nga jox leen ko kenn ku ci nekk mën a liggéey. bu déwénee ñu mën a génnee asaka waaye danga koy tasaare ku na nga jox ko ñaari téeméer kenn ko jariñoo te adduna bi looloo fiy dox mm. la ñu yàlla santoon daal dañ koo bàyyi jaar ci weneen yoon te yoon woowu buñ sa jaaree mm. fa mu jëm ak ñun bu baax mm. metti metti bii am ci dëkk bi nit ñi di ko dundee réew mi metti na jaboot bu demee bay fanaan ci biti akum njabootam xam nga ne jaaxle na yow nga yor ay kër yu dul jeex di ko nuyee kii di saw xeet di sa doomi ndey ngeen bokk men bokk benn ndey mu ne fii di tuumuraanke bu njabootam yow ngay loué say appartement dem di tëdd ci ay hôtel xam nga loolu ñaaw na askor warut a mel noonu dëgg la dëgg la voilà maa ngi jëlaat antenne bi yow li fi nga yem tamit foofu lay tàmbalee léegi jamono ji yaakaar doomu aadama yi dem nañ ba sa koo foog nañ koo dimbali ñu gën la déedéet sa yàlla gënul nelawul tey jii sa alal di ngay jël di ko jox doomu aadama tey jii loolu moo lay moo moo lay téye ba mën na yokk sa gudd fan ak sa tey jii lu la nit wax sax si loolu lay gëm mu nekk ndax dimbali loo xam ne dafa am solo moom suñu ko ko dëgg la léegi nit ñi léegi seen i seen i doom seen i soxna ak seen i doom rek kenn bokkul tey jii maa ngi gis sama benn njëriñ boo xam ne ñu naan a Matar Kassé daan na ko eh, eh, yàlla gudd fan. Mhm. tey jii dafa uuf ay jabaatam mhm. uuf ay doomam uuf ñëpp bañ a fu mu dëkk sax xale bu dëkk mu ñu la defal la formation jàngale métier ba nga mokkal mu mu la. Mhm. tey jii anam lay lay ko.

si jàppalante di góorgóorlu di dimbali doomu aadama yi képp ko def doo ko yëg. Mhm. ku def lu baax am lu baax yàlla gëmul leen ku def lu baax am lu baax. Mhm. na ngay góorgóorlu di dimbali doomu aadama yi loo am bu dee mille francs wala junni sax bokk ak doomu aadama yi doo ko rëcc mukk. Mhm. sëñ si maa ngi doon. waaw alhamdulilah Matar Kase mooy nijaay mbay mi. nag ki mu def moom ah, cuune mënu ko de ay doomam ak i jarbaatam ñoom ñëpp formé leen kenn ku ci nekk mhm. fii ñu toll nii yaa ngi ci sa teranga moom ñu wutal ko pilier na ko toogal fële lépp ñoo la ko ah, dafa am waaju baax nag bi ñuy wax Alaaji Cheikh Ñang mhm. di xaritul Modou Diop ah Modou Diop dama ci moom nag faw ma wax ndax mhm. wet gëm ko féete fu fu sori la ci ñun ndax am na loo xam ne nii boo ko defee as gor mm-hmm. mbokkam yëpp nga ko defal yàgg koo teral fu bëggam xonqi nag ci alaaji Cheikh Niang lay nekk xalaatul kenn gis am nay nijaay am nay doomi ndey waaye alaaji Cheikh Niang fa nga ko féete mm-hmm. kenn lu baax di ko jox teraanga di ko teral yëpp mm-hmm. te bu ko neexoon nu yorum dara damay dem am nag ña yor mal du ma ko faale parce que du sama naw

lu ku ku mën lu baax dee ko def kenn moomul kenn yaa ma yaa ma lu baax wax ma lu baax bëggal ma sa bopp moo tax ma toog fii te di la ko waxal yow it macha allah uuf nga sa njaboot say may nga sa say say doom macha allah si ay conditions yoo xam ni ñëpp Europe di liggéey di la jàppale léegi daanaka bu màggal ñëw dañ naa yow fàkko buy def dara ñun ñooy def lépp ndax lépp yow la yaa fondement te dèjà yow lu baax rek moo demee noonu sa lu baax nag moo tax ma toog fi tey di la ko dundal ba yal na yàlla yàgg yokk sa taxawaay ku baax na ku sa bopp la ku ma bëggal sama jii maa ngi ni sama benn jarbaat boo xam ne maa ngi yaar ñu bokk day bàyyi ñu ngi kër Touba mais chaque màggal lu ma bas ji moo tax mënu ma koo teggi di def tëral ndax loolu yow yaa ko war a daje la ñu lay sant di la gërëm yal yàlla yokk sa taxawaay daje mhm. waaw jërëjëf Alaaji Maako loolu nga wax lu am solo la. Mm-hmm. ndax euh, man ñëw naa ci kër ga màggal. dëgg xam naa ko. boo gisee nag ñuy waxtaanee mm-hmm. ndimbal. Mm-hmm. ñi ñi ñi ñi ñi jaarul yoon. ñi jaar yoon leen yóbbaale. ndax am na ñoo xam ne nii. ah fa mag ña tegoon seen tànk lañ ko teg ba tey. dëgg xam nañ li baax. te ñi ngi koy def. jege seenu askan. jege seen i mbokk. ñooru wuñu leen dawuñu leen alal soppiwu leen ndax góor bi dane woon million melu tuddul million melo woon nii la ku ko yor soppeeku bilaay dëgg la waaye boo soppeekoo bilaay say mbokki tay la rek ndax ñëpp yàlla leen yor ndax joxe metti na loolu nag. Mhm. waaye laaj ko gën a metti. as gor bu sukkee ay uumam di laaj. bëtam mhm. xonq. billaay na loolu. métti na loolu as gor bu tàllalee ay loxoom di ko laaj ab nawleen. xam nga ne. Mhm. ah loolu metti na trop. waaye nag di joxe di metti metti metti. nan laajoo ko gën a metti. billaay billaay laajoo ko gën a metti. as gor bu sañoon day am teraangam. li ñuy wax bàmmeelu biir. te kenn du la xamal dara. waaye nag daan dañul suuf. yàlla joxul ñëpp. daa jox ñii lu bari jox ñii tuuti ñii mu xañ leen yàlla moo séddale noonu adduna léegi nag bu fekkee ne mm-hmm. yàlla dalaa jox teraanga ci sa biiru askan te dimbali woo leen mm-hmm. da lay jox nag ordonnance nag boo xam ne nii mm-hmm. doo tàggoo moo mukk bari na fii ci dëkk bi ñoo xam ne nii yow nag alal jurul jeex te mënuñoo lekk ñaari nag lu ko def dañoo wàcc yoon wi ñu waroon a teg gis nga ku nit ko baax day gutu fan nit ko baax day wér suñu suñu suñu kilifa diine yi fi nekkoon. Mm-hmm. luñ leen mës a jox ci àdduna ñu joxe. Cheikh Abdou Khadir Mbacké danaam joxe di joxe ba bu lambee dëjut day nax day jug na rat buntu bi day nax ndax bëgg a joxe ñoom lu ñu mas ci àdduna joxe nañ Serigne Fallou Mbacké nit ñi daan joxe da leen di wax toog leen nii ci càmm nit ñi laaj ñu teg leen nii ci wetum day jor loolu mooy àdduna buñ xoolee ci ñoom lii ñu yàlla jox muy danañ ko jaamoo yàlla nag te bañ koo xeexe te ko def ci ay caaxaan te xam ne nag ndimbal ah yàlla moo ni ko séddana ah na kenn ku nekk dimbali sa morom ku nekk nga tane nga dimbali ko bu ñu ko defee rek addina bi dana dox yal nañu yàlla dolli xéewal defal ñu defal ñu defal ñu defal ñu jàmm ñu ñëpp alaa ñu wax bay am ngaa bokk sëñ Cheikh fi nga yem fi laay tàmbaliwaat dafa amoon sama benn xarit bu ma nekk li benn euh, xewaat si si si si alaaj abasi dabaax yàlla yàlla yokk leer si Malick nee na waa ji nee na damay ngénte ki may dawal ma sama patron ma dawal ko ñaar fukki at mu tegal jamono yi maam Abdou sama soxna am doom ma ñëw ne ko ak ah, soxna si de yéeku na waaye comme yaa may fay weer cinquante mille te damaa bëgg nga yokkal ma lu ma tudd ndax jamono na laa ko baax na dégg na ko ay fan ñëw moom waa ji patron bi woolu ko ñëw jox ko cinquante mille bi mu ko joxee cinquante mille soixante ko waaw lii de moo fi ne mu ni ko baax na daal di jël jàpp si yàlla dem këram jël ñu yóbbu kër dem ko ci biir wala ngeen tamit bi ngeen desee ñeenti fan waaye ji woo ko ni ko ñëwal da yóbbu teewal ma ziare maam mu ñëw tànn yóbbu ko ñu dem ba teewal chauffeur bi ni ko waa ji ni ko patron ni ko seeral ni ma dugg gis maam du ma yàgg tey ndax tey dafa am mission yu ma doxee mhm. patron bi daal di toog direction oto bi di ko xaar waa ji dugg saafonteeg moom ak nuyoo moom yëkkati benn somme bu def cinq cent mille ak lu tegal ñu ko ak ah, si maa ngi defal ñaan lii maa la ko ziare waaye amuñu toogaay daa amuñu na si mal daa baaxoon suñu Cheikh mhm. bi mu génnee seen sofër mu toog mu ne ko ah ka jaar sa waay ànd mu ne ko xool bu bu bëggoon a dem ñuy téye kaay defal ñu ñaan rek maa abdu daal di ñëw ñaanal leen jël enveloppe ba jox ko jox sofër bi waaw. nga xam ne lu baax moom solo. ma bokk ah, da nga daan ñëw da nga ko. billaay fi nga toog. Mhm. mu joxe war ci sa kanam. maa la ko wax ndax dafa am lu mu lay jàngal. Mhm. dalaa wax ne ah, lii nga ma indi nii di ma ko jox. Mhm. fa nga jógee nga ko waroon jox. billaay ndax am na ñu ko fa yittewoo lool. billaay loolu moo tax nag euh, mag ñu njëkk ña. seen yëpp jàngale la woon. dëgg la seen lépp jàngale la. dëgg ndax euh, addina bi ci boppam. kenn mënul sa bopp mm-hmm. du kenn ku mën bopp kenn ku ci nekk da nga am bis boo xam ne nii doomu aadama yi lay dimbali ak koo mën a doon nag ah, looloo tax nag ah ñuy ñuy waxtaane nit ñu baax ñi ndax ñeneen ñi nga xam ne jaaruñu yoon man cee dégg man cee jàngi ndax koo xam ne mu daawoo def mm. wala xalaatoo ko woon nga def ko ndax joxe mm. day tax a gudd fan mm. day tax a wér day taxal lépp lu baax lu yàlla lu yàlla lu yàlla di xéewale doomu aadama dana ñëw ci yow ndax joxe dafa am solo joxe ci boppam. dafa am solo waaw nit ñi pour ñu jàng ci. xam ne. ñett nga ci hôpital te mënul luñ seen bopp dara. ak ñi nga xam ne nii ay njàmbur lañ tëdd ci biir kër yi. te dara taxut lu dul lopp rek ak ñàkk man seen bopp. nga fexe ba guddi jot. nga yor ndànk ñëw fukk ko. ba mu ubbil la. nga toog jàmm santeeg moom. Mm. daal ko fay bàyyi lu am solo. Mm. def nga jaamu yàlla bu rëy. xanaa xamoon ne jox nit aw ci képp mu lekk. Mm-hmm. mu lekk moo ëpp yoon tabax téeméeri jàkk loolu moo tax nag mm-hmm. mag ñu njëkk ne daan joxew ñam mm-hmm. di joxe ci seenu ñaq mm-hmm. di joxe ci seen wërsëg lu ñu mas a am ci adduna rek joxe nañu bàyyi wuñ fi dara ñu leen di doon loolu moo tax jamono yi ñu toll nii nag nit ñi ndox ba mu la ñu daje ndono dong la ñuy dajale bu ñu faatoo ñu daal koy séddoo seen gannaaw mooy ko yàlla lépp fekk leen ci seen i bàmmeel te xam nga ne loolu musiba la dafa nga cee jaamu yàlla ndax compte bi ëpp doole ci compte yi mm. mooy bàmmeel lu ci waay def mm. da ko fa fekk lu ci waay deful doo ko fa fekk àddina bii loo fi ji mm. du meññ mukk ci àdduna léegi nag ah, jamono bi ci boppam moo doy war ndax nit ñi mm-hmm. xalaatutuñ jëm. dëgg la xalaatutuñ ëllëg. dëgg la tey rek leen moo leen ñor. billaay dëgg la tey rek moo leen ñor. billaay te loolu amul njëriñ. Mhm. boo gisee ñuy waxtaanee nit ñu baax ñi nag. Mhm. dañoo bëgg nit ñëpp xam seen bopp. dëgg la looloo tax. ku def lu baax man day bu ma ko xamee. danaa ko wax. moo tax ma ne la. Euh, alaaji Cheikh Niang bu baax la ci seen. mu ko a defal lu mu ko mas a defal ci teraanga rek wax na ma. dëgg la wax na mhm. nga xam ne moom la bu ko neexoon ne kii kat du ma ànd moom. dëgg la bu sabab noonu rek boobu tolluwuñu. daal di ña ànd. ndax damay xool ñu baax ñeeg VIP yi laay àndali. defu ko daa ñëw takk ci moom ànd ak moom. di ko dimbali di ko jox wërsëgam mu koy gërëm di ko ñaanal mhm. fu mu toll ñun ñii di ay mbokki mu jóg suñu xol seet na ci ndax as gor ku ko teral teral nga ba maaw la teral nga ñëpp a baax a baax yàlla yàlla yàlla si nga toog bala ngaa départ sa oto da jël say teraanga wa koñ ba nga dëkk ngay njëkk a jox ay teraanga soo ko départ bër bi suñu benn nag wax moom dong moo si àll bi weer bi feebar ñetti fan ba xam ni maire mi ngi si biir néeg bi bu daal di jëmi wooy sapeur woo police ñu ñëw parce que bu koolaa sa maire bi yàlla dem na waaye gis nga li yàlla def bi sappo di ñëwee ñu xool ko ñu ak ki de ñu déewul alsaan àndoon ñoom yóbbu ko jël saa yëpp faj maire bi moom ñu ko te loolu tamit defe naa ku baax rek ak kuy def lu baax rek moo ko mën bu borom lu ko def kenn mënul kenn yow yàlla yàlla yokk sa taxawaay man tey ji koñ ba ah de waaye du yàlla ku def ko wax kon alsaan yooyu alsaan nga yàlla yàlla sa taxawaay di sant ñëpp di gërëm ñëpp kenn mënul nag waaye nag nañ yokkaat mbaax bi ñëpp a baax waaye nag nañ yokkaat mbaax du wàññi dara waaw a jërëjëf alaaji Maodo loolu nga wax nag am solo la alsaan nag mm-hmm. xale la waaye li mu def cuune mënu ko ndax bu tam bu bu gàmmu jotee. Hmm. mu jënd nag bu mag rey mu séddale ko waa koñ. xoolul ma sàmba wala ma dem ba barki démb nag hmm. daa am soxna soo xam ne daa dëkk foofu janoom ñun Adama Siis tëdd ci néegam bi ñetti fan. tension daaneel ko kenn xamul ci lu mu ne. ñetti fan alsaan moo fexe fexe ba xam ne nit ci biir néeg bi moo sapeur yi ñu ñëw ñu daj ko ñu daj ko fekk ko ci biir jël ko mu jël ko daal di koy yóbbu hôpital ñàkk ci alalam ju bari def ci li ñu ci war a def lépp taxawu ko taxawu bu rafet ñëpp ci bég li mu def cuune mënu ko nag gone la waaye ku am jom la ku am fulla la ku xam fu muy taxaw la loolu mu def mm-hmm. dina ci am yow bi yàlla bu réy réy réy ndax kooka mm-hmm. keroog bañ koy génnee ñëpp dañoo defoon na faatu waaye yàlla dogal nekk te faatu mu dem entré ko hôpital ñu faj ko. ba yàlla def mu tane mu yóbbu ko ci ay bokkam. ba ni ko yàlla moomee euh, ca biiri bokkam. loolu euh, li mu ci def dana ci am tuyaab bu rëy rëy rëy. yal ah, na yàlla fay ko yal na yàlla guddal ah, yàlla guddal aw fanam. Mm. mu àggalee ak ndawam. yàlla yàlla yàlla yàlla dolli ko dolli dolli wërsëgam bu baax a baax a baax. amiin amiin yàlla def loolu alaaykum. ma ñëwaat sama benn grand bu naan Maguette Seck ñu jox Ndiombol Seck. la ruus moom ku baax la ku yiw la. ku ku ku fonk lislaam la doomam dafa ñëw euh, jóge Italie bugg samay wax di joxe asaka wala bi ma woowee dani ma yow moom si kër gi yëkkati xaalis bari boo xam dani bu kenn wax lii lii nag boo boo ko siiwalee rek yow la kon gannaaw yi tamit bu mu defee loolu bu ma toogee yàlla ko gërëm yi ndax yàlla seeg yàlla yàlla yokk taxawaay bu baax nga nitu dëgg nga ku yiw nga ku lislaame nga doo wax lu ñaaw doo ko jëfee yàlla yàlla yokk taxawaay seeg jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf euh, Alaaji Maaxu ah loolu nga wax lu am solo la nag ah waaw ah, Njombori nag ah, moo yar doomam nag ah, wax dëgg yàlla moo yar doomam Assane nag gone la ku am respect la xamee na ay baayam jox na man damay fekk ba sama kër yëkkati trangaam jox ma ko saa yu dem dana dana dana dellu siwaat ca lañu la waxee woon démb. ndax démb lu am solo la. mag ñi nañ daan dunde démb. ah lépp ci ëtt lañ ko daan réglé. bu ñu reeree noppi lan ba sañi toog. di waxtaani cosaani maam ya di waxtaan mag ñu mag ñoom nañ daan doxale ak la xewoon démb. baax baax yooyu. xale yi di ko dégg. man ci ëtt laa yaru. ah di dégg mag ña nañ daan waxtaane moo tax lu ma nag. damaa xam ne nag. koo xam ne mage na la lu mat. daanaka téeméer ya boo xamee ci moom dara rek mag ñaa la ko nekk loolu moo tax yàlla mm. ah, dimbali ñu ba nga xam ne mm. ah ndimbal rek la ñu xam. kenn ku nekk mën a sa morom. ndax yàlla maye na nit lu ne. waaye xam sa maam yi bàyyi lu jafe la. yàlla maye lu kenn nga xam sa maam yi bàyyi. xam sa maam yi yaay sax gën a yomb xam sa maam bàyyi. ka sa baay di wax maam tamit dëgg. mu jur bàyyam. xam ko wóorul de. ñu bari xamuñu loolu moo tax àddina bi. Mm-hmm. dañoo war a delluwaat gannaaw. bu ñu dee ba xamatuñ suñu jëm. Mm-hmm. nañu dellu gannaaw. ndax suñu réew kat. Mm-hmm. dafa rax. tubaab yaa ngi fi indil ñu ay jukko yoo xam ne doonuñu ko woon. dëgg la ñu topp télévision yi topp portable yi rek. dëgg la ba la sànq. dëgg la ndimbal jeex. xamatuñu ndey. xamatuñu baay. xamatuñu doomi ndey. xamatuñu dara. te loolu doy na waar. non doy na waar doy na waar faaw ñu delluwaat démb. non doy na waar xoolaat. doy na waar euh, dem soit suñu cosaan. doy na waar yal nañu yàlla dolli xéewal. defal ñu kii alaaji ma ko béy. waaw loolu si Cheikh nga yem laay tàmbalee ma ne tey jii bu waxee bu waxee bay bëgg a daaneel surtout ma tamit euh, ñi ma bokkal ah day doy waar nuyu sama benn mbokk sama taawu yaay ñu bokk bopp. man sa Ndiaye Mekhe. di yaay Fallou Mbow xam ne Fallou moom ñëpp ma fu ma nee fa man yàlla xam ne sama jet ba dañu maa bëgg dañu maa teg foo xam teguñu fa kenn ba ñëpp lañ bëgg nag waaye man dañu maa féetewoo ñoom ñëpp nag. kon tey may boo toogee fii di waxtaan yaa ngi leen di di gërëm ku ne sama grand frère bu mu sàmm mu sa kër ga ngay sàmm nga nekk jàmbaare ne sa kër ga moo moo pap ñoo bokkoon mu mu mu wax sa di la gërëm euh, bu weesoo maa ngi nuyu tamit sama mag bi nekk Touba ñu naan ko day ñaan moom it vraiment kooku moom moo jigéen bi ma dugal yàqu su dara sa du daal Cheikh day jàppale seen jaay seen jaay rek laa am tey jii moom sa couple Cheikh bi def ñuy wax waaye tamit wax dëgg yàlla bu mu toogee nit def lu baax da nga koy gërëm Cheikh yooyu foofu nga ne si problème yàlla na yàlla yokk sa taxawaay yàgg sama benn xarit bu naa Serigne sama xarit yëpp sama grand place fi mu toog ba dem ñun ñëpp a nga toog di ma xaar ana ah, sa waay ana sa waay yéen it maa ngi lay sant di leen ku lim da ngay jub nuyu naa ñëpp sant naa ñëpp wasalaam <laughs> waaw jërëjëf alaaji Maodo foofu nga foofu nga foofu nga yem sax man fa lay tàmbalee ndax euh, néegum ndey dafa am solo. dëgg mag ñi dañ daan. dañ daan teralante da seen néegi ndey. ndax meen lu am solo la. boo gisee mag ñi daan uuf seen i jarbaat. dëgg la daa am jarbaat yi génn am jarbaat yi meen. jarbaat bi nga bokk ak ndeyam bàyyi dong ak bi nga bokk ak moom ndeyam bàyyi ndeyam bàyyi. ñooñu. Mm. soo gisee ñu ma masaana dajaloo ci kër. kenn ku ci nekk. Mm. dangay day am cër boo xam ne moom nga koy jox. noonu la mag ñi daan dundee. Mm. bu ñu demee ba nga war a samp kër ñu daal di lay ber sampal la sa kër defaral la ko ba mu baax daal lay wutal soxna tegal la fa moom la dëkk yépp màgge loolu tax mag ñi daan gor àll bi mm-hmm. di samp gasub teen mm-hmm. daal di samp jàkka samp seen kër ba mu doonu dëkk mm-hmm. su ko defee seeni bokk ñépp ñëw noonu la mag ñi daan dundee. waaye jamono bii ñu toll nii nag. nit ñi beru daal lañ xam. dëgg la dëgg beru lañ xam. ndax dox daje moo xew. da takk soxna soo xam ne bokku leen dara la. Mm-hmm. a la appartement. appartement maanaam kooku génne na ci say bopp. non billaay na ci joo. dëgg xam nga ne loolu musiba la. bu ngeen fay reyante ku leen di atte. kenn sëy daal. Mm-hmm. bu dee sëy yu gone. Mm-hmm. dañuy jege mag ña. borom góor bi ne nii. borom jigéen bi ne nii. ku bëgg wax ñu ne la dee nii la kat waaye beru mhm. lii ngay gis yëpp muy am mhm. looloo ko indi ay musiba yi dimbalante jeex na jàmm jeex na ci àddina bi te lépp li ko indi mooy mhm. nit ñi dañoo topp seen i bakkan la ñu yaakaar ne mooy dëgg du dëgg alal du dëgg alal bu dëgg ndax am na ñoo xam ne ay milliards lañ fi bàyyi tey jii ñu ngi ci biir suuf su fekkoon ne alal am am na njëriñ kon alal ji i mbay du dem. kon ju ko du dem. alal mënulul nit dara. alal daal li mu man mooy def lu baax. teral ci nit ñi. Mm. teral ci say bopp. def ci lu baax loolu la alal man. waaye alal mënul leneen. lu dul mm. li nga ciy tiim lekk ko ci sa biir. képp nga ci am. loo loo ci am mooy. Mm. li nga ciy def lu baax ndawal ko ci sa bàmmeel. nit ñi daal li ma bëgg man. mooy dañ dimbalante waay. nit ñi mënuñoo mënuñoo mënuñoo faj feebar de. dëgg rek la bu dëgg amee daal. dëgg la danañ indi naj yeeg. indi boisson sol seen i bassin kenn ku nekk di wokkati. waaw loolu bu yàggee lu baax di ñi néew doole dee. Mhm. ñi am doole di fo. addina mhm. bi de yàlla bindoo ko moom. yàlla yàlla doole dimbali. alaay si wax ah néew ma ñu ngi koy def de waaye bilaay léegi lu néew la ñu ngi koy def nag waaye lu néew la ñëw war na soxlaam tëj sa nga nga xañ ko sa nga xañ sa bopp sa jox ko muy xam li tiyaaba si yàlla dimbali tëj sa man mën naa faat sa loolu yóbbu laa jël mais yàlla dafa bëgg kuy dimbalaate tëj sa boo bokkee ngeen dëkk ay dëkkandoo ngay togg tey ji loo xam tey wàlla gis nga suñu mbokk jigéen ñi ñuy togg sax sa dëkkandoo ko am waru ko sentir mhm. waaye nag gis nga jamono yi léegi nii moom la nit ëppale rek wan la ko sa àdduna tëj ji boo amee dërëm bokk doomu aadama yi boo amee ñaar dërëm bokk doomu aadama yi toog teg ataaya sa nit ñi ñëw di waxtaan sax bu bu paree bu koy def rek ndimbalu la. wàññiwul dara mooy kan koo gis defuñu sa bopp. koo gis def defuñu sa bopp ak nam solo tey jii jàmm dafa neex boo amee jàmm a nit ñi la moom si lépp xaj amal jàmm rek baax yéen a nit ñi jàmm doo sonn foo nekk yàlla lay jàppale. surtout yàlla lay pousse ngay dem rek kenn mën si yow dara ndax yàlla moo lay teg loxo baax na yombul ak a jafe. yàlla la ko def doomu aadama yombul nag de waaye wala ay doomu aadama ñu ne ñu def ñu jàng baax ma ne ah de waaye tamit dëgg lépp lu ma mën si baax dinaa gën a yokkaat gën a góorgóorlu kenn du ko def bëri jóg billaay parce que baax moom dafa doon xam ni suñu borom moo ko bëgg yóbbul nag des fois nga baax euh, nga nga baax ndax tey daal damay bon waay wala ñaari fan ngay baax ngay ngay bon delluwaat sa baax des fois nga xool ngeen baaxul si kàddu bi baax benn fan ngay ngay baax dañ waa soxla ko. kon ngeen góorgóorlu yokkuwaat taxawaay yokku li seen seq waxal yokkuwaat bi. Mm-hmm. bu ko defee rek Sénégal jëm kanam ma tey jii buy xeeb dara. buy xeeb dara yàlla loo ko defal ëllëg mën na ko ndax boo defee lu bon da ngay déglu xaar la ba xam li ngeen di boo defee lu baax da koy doublé kan nga lay wax nan baax mooy. Mm-hmm. jàppale ak doomu aadama yi. dëgg la jàppale néew doole yi. Mm-hmm. bu nga defee kuréel Sénégal jëm kanam jërëjëf sëñ si jërëjëf jërëjëf alaaji maxu loolu wax lu am solo la baax yombul yombul ndax ni ñi ci bari baaxuñu dañuy baax baax baax yombul saalum nee nañ diw fa baax ak man la ñuy wax saalum saalum yi diw fa baax ak man baax na ci yow waaye baaxul ci kër loolu la saalum bi wax waaye diw a baax rek saalum bi ñu ko wax de diw fa baax ak man waaw daa baax ci yow. waaye est-ce baax na ci kee. baax baaxul la nit ñi def. duñ lépp lu ñu def mistal la. mistal loolu baaxul. noonu la nit ñu baax ñu nag. Mm. dañ lay teral. Mm. xooluñu ci dara. yàlla képp lañ koy seedeel. te loolu mooy àdduna. da ngay fekk góor soo xam ne. ma mm. nga sol bu mu rafet. waaye ca biiram. ah malaanam sutura la. loolu moo tax nag. waaye def lu baax. da ngay bett nit ki ak xéwal. la doomu aadama fekk nit ki. mu wóorul la ci jafe-jafe la nekk. nga fexe ba génne ko ci. wallahi azim yàlla lay fay waaye pay bi yàlla nag mm-hmm. boo ko bëgg yàlla moom mm-hmm. dala koy dencal ba yomal xeematul ak mu ne leen lii nga defal ci lu baax bi mi ngi nii moom ngay aññe tey nit ñi nag sooraale wuñ loolu sooraale de ndax as gor mm-hmm. boo fekkee ni mun ta laaj yow mi nga xam ne yaay joxe yaa koy nemmeeku xool ko ñëw jege ko waaye daw nit ñi daw say bopp doo leen nangoo xam fàtte leen loolu daal baaxul nit ñi baax ña dëkk yéen ñu dëkkoon. Mm-hmm. fexe nañ ba suqali ñëpp. billaay gone yi fa nekk mën a liggéey. billaay yóbbu nañ leen ñu liggéey. mag ña fa nekkoon nga xam ne nañoo aji màkka. Mm-hmm. ñu fexe ba yóbbu leen ñu aji màkka. te ci balaa seen doole jeex. noonu la nit ñu baax ña daan def démb. waaye nit tey ñi nag. bu ko defee rek. bu ko defee doomu ay ñu def. leen di ca làmb yi. di leen way ca sorano. di leen way ci théâtre. Mm-hmm. fu nañu way leen fa. te loolu amul njëriñ. di leen tey ñu ko joxe. te mbokk mu sës ci amul lu mu lekk. xam nga ne yàlla doy. ah doy na wàllu na la ca woo wax. dëgg la dëgg la de. ak alal ji bi mu la ko joxee. Mhm. joxe loolu dala koo joxe loolu. billaay billaay yàlla ku mu jox da laa joxe loolu. waaye alal. Mhm. nga dajale ko. Mhm. alal du bari doo gis nag alal ko fa bàyyi. billaay dëgg la waaw te alal baaxul. billaay alal baaxul la laaj nga ne yaa ma tane de. te tane wu la. billaay bu la tane woon du la laaj. billaay ak ko su bàyyee léppam ñëw di la laaj. amul lenn looy war a def lu dul. jox ko rek. dëgg la sëñ Fallou loolu daan wax. Hmm. bàyyi leen tas yaakaar. Hmm. askor du tas yaakaar. bàyyi leen tas yaakaar nit ñi ku tas tas sa yaakaar. dëgg dëgg la waaw Cheikh maa comme comme ni ma la ko waxee rek. ak mbaax moom sax rek. bilaay ku bu saxee rek duñ ko am solo. ndimbal dafa am solo. doomu aadama yàlla ñun ñëpp la bokk bind. waaye nag bokk bokk bokk. fu ne fu ne daanu teg sa moom kon tey jii bu la yàlla joxee da ngay joxe ko nekkoon mel ni nga mel ni kooku tey jii sa yaa ngi boo boo rombee puy ngeen baal soxna sax boo sa puy puy jox ma jox ko si yàlla tax. dëgg la jox ko si yàlla boo bañee la muy def nga def. mu def ko jox ko si yàlla tax. ndax xamoon na ko yàlla sax kenn njëkk a xel. Mhm. suñ suñu borom rek moo xam doomu aadama. suñu borom nit dafa lëndëm mhm. yàlla rek moo ko xam. Mhm. kon man yokkaat taxawaay gën a góorgóorluwaat jàppale doomu aadama yi di dimbalante bu dimbalantee rek lépp neex. Mhm. ndax tey ci famille bu nekkee ensemble kii am kii am yooyu du la xarab sax. Ah. waaw du nit yow. ah tey jii bu di boo tey jii bu ma amee dimbali sama jarbaat dimbali sama rakk dimbali sama maam ah mais ku lay xaaral xaraba rek ku la xamal dañu moom moo fay def. ñoo ñoo lay dimbali ñoo lay dimbali ñoo lay dimbali mooy li ma wax sànq rek waaye doon dimbali ay mbokkam daa dem ay mbokkam taxaw ko satu ñu ko lii yaa ko ñu toog bu defati dara ndax lépp yaa a yokk di dimbali doomu aadama yi di ko xeeb loo am dimbali doomu aadama yi teg ataaya nit ñi naan sax ndimbal la teg café sax xeeb tax nit wala waaye nag nañ nañ dafa defaraat toogaay di góorgóorlu bu baax sant yàlla baax yàlla baax waaw jamono bii ñu nekk nii jamono boo xam ne nii jamono bu metti la ndax àddina ci boppam moo xat mm-hmm. xataay moo xam ne mm-hmm. ah, kenn ku nekk mm-hmm. yëg nga ko ci sa bopp ñi am alal sax yëg nañ ne jamono bi dafa xam ndax liberté bi nit ñi waroon am amatuñ ko fii ñu daj fii ñu fii ñu dëkk ci capital yi dafa xat dafa ñu bàyyi àll ba nga xam ne moom lañ cosaanoo bàyyi suñ cosaani maam ya bàyyi suñ génti maam ya daal di ñëw dajaloo fii ci Dakar ñëpp dajaloo fi metti na kon nag kenn ku ci nekk fu sa mbokk nekk na na na na nga fexe xam ko. la ndax yàlla loolu la ñu sant. waaw bu yàlla bu la joxee. Mm-hmm. dalaa joxe loolu. commerçant bi nga xam ne. Mm-hmm. daana ci seen biir. Mm-hmm. ngeen bokk marché yi. di jaay ma mu daal. yéen commerçant yi nga xam ne yéen la nekkaloon. jël leen ci seen asaka yi ngeen dimbali ko. mu jugal mu jugal ngeen àndaat ak moom. moom loolu loolu mooy ndimbal. waaye toog di ko seetaan. bàyyi ko mu daanu complètement ba dem di taxawaalu ji. loolu rafetul ndimbal daal. yàllaa ñu ko sant. Mm. yàlla na ko yàlla defal. ñun ñëpp. te am ñaam doole. Mm. dimbali ñu amul doole. ñi am doole. Hmm. dimbali ñu amul doole. su ko defee jàmm na jooy ñëpp ne ci jàmm. ñu jaamu yàlla. mën a tabbi aljana. waaw ñu ngi sant bu baax nag. di gërëm nag. waaw ah, suñu soxna a ñu bàyyi ci kër ga. waaw waaw nag ñu gërëm leen. ndax ñoom. ñu ngi toog ñu ngi toog di muñ. waaw ñu dara nag. toog fañ war a toog. dëgg yàlla taxawaalu wuñu. dëgg yàlla ah, di liggéey. di liggéey uuf seen njaboot. suturaal seen borom kër. kon nag waaw loolu moom mënuñu leen ñàkk. du la teg fitna mu. waaw sama soxna soosu di Aminata Fall. bilaay ah maa koy sant bu baax la. dëgg la dëgg la su ma yàggee fii ca Dakar nag moom moo tax. la dëgg la dëgg la moom moo uuf. la a soppeeku. dëgg la dëgg la a changé. ba yàlla jox ñu njaboot yéen a jox ma sët. kon yàlla yàlla aw fanam. te yokk liggéeyam. Mm-hmm. te barkeel ko. Mm-hmm. barkeel ak njabootam. ba li mu yaakaar ci ñoom yàlla defal ko. waaw sa soxna sii di Ndeye Marème Sène. waaw moom ah, it nit la wax dëgg yàlla événement la ñëw ba mu ni ma nii lu ma ko jox baax na muy nekk bu xoolee muy dara lu mu doon mu jël jàpp moo sa ñàmbro foofu ay doom nag toog di muñ yàlla yàlla yokk taxaw ñu dund ay doom aw ko li nuyu tamit sama sër bu baax ñuy defa ko njaay Cheikh ñëpp foofu baax baax na bëgg nañ bokk suñu mbokk kii xam nga des fois mën ñoo ñàkk des fois mu dëx dëx am suuf waaye lépp lu am moo ñu taxaw def daala gis di ko di ko def. bu baax a démb yaa baax a ndox mu bokk. dëgg yàlla démb ku baax nga da nga yaakaar la loolu ngay def. boo xam yàlla bëgg ko dafa am mbokk. li ngay def li si nga def taax bu ko tegee. jàpp ko def te bàyyi. mag ñaa ko yaram am solo. mag ñaa ko yaram lu lu yàq du fay muy def alal côté nag muy famille baayam famille ndeyam. jaaxal lu si yàq moo jur soldat bi bu ko defoon démb fi yaa baax waaye kenn moom ma yaa baax yàlla na suñu njaboot boobu uuf ba yóbbu la màkk nga dund ak dund ak ñoom ba heure bu la neexee dina jëf say kontaan naa si yow ku baax nga ku yiw nga di nuyu nag ñëpp di nuyu nag sama téer muy may Diouf moom it vraiment lu ma sol moo ko ñëw moom damaa bëggal boppam damaa bëggal boppam ba may fiiree sax bëgg sax may ànd ak kenn ah ndax bëgg ma ah sol moo ko ñëw numéro téléphone am 613 28 111 la mi ngi marché HLM centre commercial Isabelle Diouf képp ku bëgg mu ñëwal rek boo demee incha allah la defal ji macha allah ndax moom it ku baax ku yiw pirgee mu dëkk saa bu demee otoom lay gaare ay nijaay la dëkkal mhm. booy fii kat mooy sama kër bu mag yaay fa laay joxe bu paree noonu même bu gàmm pirgee mu dëkk bu gàmm ba ñëwee noonu lay def day ñëw droit rek kër bu dem jox la ay la yaa may dégg ñëw na gàmm ñun def na sama kër ma sol gàmm ndax nit lii moom war ñun ñoo ma teg ko bi xam moom ko nekk ak moom ba si aw yoon mu ngi loolu mu def lépp yóbbu yow it ngay yàlla yokk taxawaay ku baax nga ku yiw nga ku ku ku alal sa alal bi la kenn yéen bu ma fa jàpp yi jox ma ñu jox moom rek jox ma yow yàlla yàlla yokk taxawaay jërëjëf kontaan ay sax ku lim da ngay dum nuyu xam ne sama soppe rek maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di nuyu nag maa sama xarit passé weer ku ma koo bëggal sa bopp ma sàkk di ma ngay sama kër fa nga naan si ataaya di nuyu waa ngaay di nuyu ñëpp ku ma li ku ma li ku ma li ku ma li a nag maa ngi jéggalu la ma yàlla ma dimbali ma am ay doomu aadama maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ñoom mbet ñoom Ndeye Mbaye ak ñoom ñëpp am grand place ñoom ñëpp nuyu naa leen bu baax a baax ñoom ñëpp nuyu nañ leen ah. kon ku lim la da ngay tudd ku ma dégg xam nga yaa ngi ci lim bi lu ñuy def Anta Diama sama jot baax ah. ak ñoom Awa Samb ak ñoom Ndeye Samb ñoom vraiment fu ma leen teg ba léegi ña nga toog foofu di sëy waaw ñoom yàlla yàlla yokk seen taxawaay seen jëkkër yàlla yokk seen ndimbal ban am lu ñu leen yor jërëjëf Sow ah, jërëjëf loolu moom lu am solo la maa ngi gërëm sama wàkkat nag bu baax a baax a baax a baax jaaji Diouf maa ngi koy gërëm bu baax a baax yi ma sol nii moom émission bi waaw moo la ko jox. moo ma ko ma dama booy dem ci bi ko soog yi. dëgg la ak soxnaam Fatma Samb sama rek moo topp ci man. dëgg la ah di nuyu nag sama xarit bi nga xam ne nii. Mm-hmm. mooy Mamadou Diop. Mamadou Diop dëgg la ah ñu bokk lépp. dëgg la moom ah lii lépp moo ko waral. dëgg la dëgg la moo tax ñu ngi koy bu baax nag di ko ziare. di ko bu baax ak njabootam. dëgg ah, di nuyu soxnaam nag de Yacine. ñu koy ziare bu baax nag ak moo magam ya Ceekal Diop. ñoo leen di ziar bu baax daal. dëgg la ziare ñëpp. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. jërëjëf Samba. Bienvenue sur Salam Vision.